seetaan fii si seen émission comme politique émission bi nga xam ne comme niñ leen ko promettre dañuy wër actualité bi andil leen l'homme qu'il faut à la place qu'il faut autour d'un débat constructif productif et positif tey nag euh, dafa nekk actualité boo xam ne nii vraiment actualité bu bu rëy la bu am ay enjeux yu yu rëy bu am ay taxawaay yu yu doy waar yoo xam ne nii ñun mënu ci woon ñàkk wax ñun nag euh, comme niñ leen ko promettre toujours dañuy fexe ba wax dans la productivité dans la positivité mais aussi dans la constructivité moo tax fan yi yëpp weesu ma nekk di jàngat dem sur le terrain di wëri ay information pour am tout le nécessaire à la source pour daal di ut nag ki nga xam ne moo mën a ñëw toog waxtaan ak nit ñi waxtaan boo xam ne dina fegu ci ñetti ponk yi nga xam ne nii moo ñu tax a jóg moo nekk suñu objectif te moo mën a jëmale réew mi kanam euh, ñu teg fi nag ki nga xam ne moom c'est un euh, porteur de de de de voix moo xam ne moom il est de la société civile yàgg nañ ko seetaan di ko gis ci ay génn yu houleuse mais ci kaw rek toujours loo xam ne lu logique la te lu concret la euh, daam ñu leen nuyu di la sant di la dalal tey si suñu plateau Comme politique merci beaucoup soxna Euh, maa ngi lay nuyu di la sant euh, ñëw ci émission bu mag bi yi nga xam ni moom mooy comme politique nga xam ni naam duma politicien mais comme ni nga ma présenté syndicaliste la membre de la société civile bu Sénégal kon nag lépp liy xew ci askan wi daf ma ñor ñor ñi nga xam ni ñoom laa àndal ñor ñi nga xam ñooy sénégalais yi nga xam ñun ñoo leen di formé kon nag soo ma woowee ci waxtaan wu mel nii nga xam ni man duma politicien bokkuma ci benn parti politique Euh, yaakaar naan dañ ci mën a def ay jàngat. Mhm. suñu aqulaay taala wax rek te yàlla rek tax. Mhm. analyser ko froidement. Mhm. wax ci sunu gis-gis. ak li nga xam ne moom moo am depuis presque maintenant bientôt une dizaine de jour nga xam moo lëmbee actualité Sénégal. kon nag soxna Zeynab soo ma ci woowee. dama ciy kontaan di nuyu say téléspectateur ak say internet di ñaan rek lépp lu luñ fi wax ñu wax ko ci suñu aqulaay taala te mu jural njariñ askan wi te mu indi ay leeral. ci li nga xam ni fii ci leeral. Mhm. lañ koy defee jërëjëf incha allah jërëjëf daam kon nag euh, comme li ngeen ko déggee yéen ñii duñu seetaan ñu nar nag euh, jël li nga xam ne mooy affaire Ousmane ko waxtaanee ko ci ñaari pàcc légalité ak moralité daam bi nga xam ne nag moom a gën a dégg olof. xam naa dina ma mën a leeral askan bi ci ñaari pàcc yooyu ñu ko bëgg waxtaanee mooy moralité ak légalité ci moralité dem naa ci ñi nga xam ne ñooy ñooñu Ousmane Sonko yi dem naa ci ay dëkkandoom dem naa ci ñu ko jege laaj naa leen wax nañ ma dem naa ci salon de massage yi nga xam ne fa la ne fa la doon massé woo may nuyu au passage Abdoulaye mi nekk docteur Wardini dem naa aussi ci Adji Sarr daal di laajte ay mbir ci moom ba ñëw toog danga ñuy rek tënkal sa analyse ci côté moralité ma doog a dugg ci question yi ak ci information yi nga xam ne am naa ko ci côté moralité. waaw jërëjëf soxna Zeynab xam nga man dama nekk d'abord nit koo xam ni lépp lu may wax lu ma gëm lay doon parce que waxuma dara ci par parparloo euh, bokkuma Pastef Ousmane Sonko aw ma numéro am mos na ñoo daje nag mu jox ma numéro ñu waxtaanoon en 2014 ou boobu mi ngi doog am parti maa ngi moom bi ñu toogee ak El Malick Ndiaye mii nga xam tey mooy chargé communication a ma annoncé sax premier livre bi nga xam moom la bind sur le pétrole boobu waxoon na man dina ko bind. mu sàkk woon maa moom comme ñaari jeune lañ ñu ànd ma ne ko man politique waaye maa ngi lay encouragé ci yoon wi nga jël parce que politique dafa réew moo ko tax a booba bi ma jëlee numéro mu jël sama numéro mësuñu woowante xaw ma kër Ousmane Sonko xaw ma euh, siège u Pastef donc loolu pour ma leeral ko sénégal yi parce que important aussi kuy wax ñu mën la sutiyee mm. kon nag coow lii bi mu amee rek man bi ma ciy joxe sama xalaat comme ni nga ma présenté en tant que leader d'opinion laa ci waxee xaw ma Ousmane Sonko pour mën ko juger mais ñun dañuy xool nit ku nekk ci taxawaayam mën a xool par rapport ak li mu wane parce que nit bu demee ba ci réew diineem tax ñu mën koo traité de salafiste gëm ne kon moom day fësal diineem parce que àdduna bi dañu gis ni képp ku fësal sa diine rek ñu jéem laa diaboliser kon nag moom bu andee éthique ci politique wane ni yorin bu sell lay lay lay lay lay wane ci politique wane ni moom système bii fi nekk nga ku ne xam na ni rëq-rëq yi ci am metti na mu ne moom day indi anti système pour andi lu bees li nga xam moo tënk Sénégal mu tinki ko kon nag jàpp naa ni kooku rek déjà valeur la leneen li nag mooy aussi vraiment mu nekk nit koo xam dafa liggéey fukki at ak juróom ci DGID euh, nga xam ni foofu secteur la boo xam ni da ngay jokkalante ay xaalis ak ay entreprise ak lu ne te état am information yépp kon ça dee fukki at juróom nga ne aw ma dul benn kër mooy këram boobu ñu encercler ni jël ko en otage actuellement de parce que gendarmerie mi ngi foofu di filtrer kuy dugg ak ku dul génn mu ne benn kër boobu rek la am ku xam beneen na ko teg ci table ji jàpp naa ne man nga xam ne gis nga sax ñoo xam ne amuñu sax revenu yu bëri di am ñaari kër ndakaaroo ki ñetti kër politiciens yi ëpp ci ñoom ko jël am na fukki kër ndakaaru wala lu ko ëpp mhm. man jàpp naa ne looloot valeur la parce que mhm. lu jafe la donc bu ma jëlee nag kale beneen bi Mm-hmm. loolu laay tënk rek nañ dem nañ eggali ci Ousmane ko ba pare ma dolli la ci wàllu euh, toujours euh, li nga xam ne moom la nit ñi gis ci moom xam ci moom ci wàllu problème bi nga xam ne mooy accusation de viol bi biñ demee fi nga xam ne mooy ci Rose Wardini clinique l'Océan bi nga xam ne moom wax na ne fa la jaaroon avant muy ñëw ci clinique firndeel nañ ne jaar na fa te nee nañ ñu effectivement foofu ay prix yu onéreux ñoo fa am mun nga dem ba quatre cent mille cinq cent mille ça dépend de package bi nga jël te effectivement jaar na fa proposé nañ ko ji def na ko ba pare ñu jox ko prix bi mu ëpp ci moom ñu ne ko xëy nañu wàññil la mais xam na lañ ko waxaat sax dañ koy wàññil ba tey dafa cher ci moom waaye daal gisaatuñ ko loolu nekk na loo xam ne gis nañ ko ci terrain bi jërëjëf lan nga ci mën a wax loolu li ma ci mën a wax mooy soxna Zeynab li nga def dafa am solo xam nga problème bi bi mu commencé ba léegi dama ne journaliste yi nañu te bàyyi nekk ci sentimentalisme ak par ak di far parce que yow li nga def xam nga mënoon nga faa dem ñu wax la leneen ci Ousmane sonk moom nga fa dem ñu ne la bànnee xam moo ko fi indi woon mais dañ danga nga ñëw ñu ne la effectivement parce que moom daf ko wax ci conférence de presse bi mu def la veille ñu ko doon jéem a jëli këram mu ne man déwuma ci salon de massage pour sama bànneex mais damaa am feebar boo si depuis xale la ma dal may faju jaar ci yeneen euh, euh, euh, cabinet de massage yoo xam ne lan ma doon laaj aw ma ko ma jaar ci ay chinois jaar ci ay sénégalais bu ci nekk ma xool ni naam doon nañ ma faj mais lan ma doon laaj aw ma ko moo tax ma dem seet fu gën a oyof parce que ku ne xam na ne fay 200000 yamul ak fay 40000 te salon de massage ak ñi may dégg ñuy ruube naan lu tax mënul woon a dem ci yeneen euh, clinique yi mais nit koo xam ni yow da ngaa nekkoon yore sa liggéey bu baax yore sa salaire bu baax boo xam ne daanaka salaire u député bii ñuy kañ salaire boobu peut-être moo ko ëppoon sax. Mm-hmm. ñu dàqe la fa kon jàpp naa ne. kooku amul moyen yoo xam ne day mën a dem di fay fu ko neex kon nag moom lii nga wax yow c'est important te lii lañ doon xaar ci journaliste yi mooy ñu bañ a par parloo dem ci terrain bi comme moom junj na ko moom Ousmane sonk ni dama am cabinet yu ma jaaroon yow nga def liggéey bu professionnel nii li ma la ciy wax mooy wax la ne nii la jeune journaliste war a def nii la journaliste war a def maanaam dem ci la nga xam fa la information ba amee mu teg ko ci loxoy sénégalais yi pour dëggal wala mu weddi yow nag li nga wax dafa dëggal. li nga xam moom la Ousmane Sonko wax wax ne am na fu mu jaar yow dem nga ba gisal sa bopp gis ne loolu am na et que nee na foofa dafa seeroon moo tax mu jóge fa dem ci fii gën a yomb te ku nekk yaa xam li nga yëg sa yaram te moo ne li muy li muy yëg ci yaramam comme mayu ko muy dem fu cher moom il faut mu dem même bu dee fu euh, fu fu nit ñi yaakaar ne du milieu bu baax mais lii milieu boo xam am nañ seen récépissé état reconnaître lañ te kenn amul fenn foo sukkandiku ba ni waru faa dem ci ñiy ruube mais muy dem wut lu ko lu ko lu ko lu ko lu ko soulager parce que moom dafa feebar ci ci ginnaawam dañ ko war di masser pour muscles yi bàyyi mais wax dëgg yàlla je crois que li nga wax nii moom leeral na mbir mu mu bari lu bari ci li nga xam ne moom mooy coow ci kaw loolu itamit ñu dellu delluwaat fi nga xam ne parce que ñu bari nee nañ euh, ki nga xam ne député la am salaire un million et quelque lan moo tax muy am problème mu faju boobu Ousmane Sonko bi mu daan génn gis nañ ne mu ne xaalisam da koy jël di ko dugal ci fu bari fi nga xam ne nii ci wàllu social la ñu woote woon euh, fële di Kaolack internat ba may nuyu madame Diaw de passage ndax am na association boo xam ne JIDER dañ koy yóbbul ñoom tamit chaque année euh, li nga xam ne mooy ay dons ma woo madame Diaw mu ne ma effectivement Ousmane ko chaque mois day indi cent mille francs fii virement mois bii rek moo ci mujj te trois cent mille yooyu moom la ñuy fayee lii di location bi. lan moo ci sa kàddu. loolu li ci sama kàddu mooy da ngay dëggalit sur le plan éthique. li nga xam ne moom la politicien di wax parce que moom bi ñu ko falee député la def déclaration ni moom salaire député am dina ko def ñetti pàcc benn pàcc bi dina ko jox euh, pouponnière boobu ngay wax kon soo demee ñoo ñu nekk ca pouponnière ba dëggal ko te bi mu nekkee député ak léegi mu ngi bëgg a yàgg lu mu gàtt gàtt dem na ñetti at kon jàpp naa ni wax dëgg yàlla foofoot lam waxoon sénégalais yow dem nga vérifier ko ne sénégalais yi Ousmane Sonko mañ faloon mu nekk député mu ne man sama salaire du ma jël lépp dinaa ci jox euh, une partie euh, ay xale yoo xam ne dañoo nekk ñu tumuranke ñu yor leen ci pouponnière euh, su ma juumul di pouponnière vivre ensemble mm. bu mbuur man wala bu Kaolack mm-hmm. muy pouponnière boo xam ma nga ca Kaolack man mm-hmm. jàpp naa ni loolu lu rafet la mm-hmm. parce que lam wax méngoo na ak li am parce que yooyu yaa ko vérifié ak responsable ya nekk ca pouponnière ba te nee nga te nee directrice moo dëggal loolu xam moom Ousmane Sonko parce que politiciens yu bëri bu dara xewee dañuy xaatar xaatare wanewu def dara loo xam si pour ñu dégg ko la rek ñu ne ñu ngi def lu baax bu bu bu bu mbaay ma jàllee ñu génn ca mm-hmm. mais yow nee nga même weer wii ñu nekk mm-hmm. moom defaat na loolu kon moom ba mu ko diggee ba léegi ne loolu lay def ci salaire u député dina ci jël loolu nee nga trois cent mille la man jàpp naa ne chaque mois mi ngi koy virer ci pouponnière boobu jàpp naa ne quand lii lu rafet la loo xam ne yow comme ni nga ko defee moom lañ doon xaar encore une fois ci ñëpp pour que lépp lu ñu fiy wax rek ñu teg ko ci dëgg te bàyyi wër-wër. ñu delluwaat encore dem fi nga xam ne mooy Sacré ñu xam fa trop euh, ci euh, góor gi daal di xool ñun ci wàllu euh, dëkkandoo yi comme jullit koy defee dañuy daal di xool dëkkandoo yu lan la ñu xam ci Ousmane Sonko laaj leen ñu am ci ay kilifa sax yu dëkk moom yu bëri yu ne xamaluñ ko lu dul jàmm ak salaam xamaluñ ko lu dul rey xew bu amee bu naqar wala bu tiis dañ koy gis xamaluñ ko daal lu dul ay jikkoo jullit loolu lañ am ci information ci wàllu témoignage dëkkandoo bi loolu tam lan nga ciy wax balaa ñu dem ci Adji Sarr waaw loolu tamit li ma ciy wax rek mooy dañu nit bu ne baax na ñu ne ndax ay mbokkam ñoo ko wax Eh, ñu ni mbokk mooy say mbokku deret ak say mbokku dëkkandoo kon nag suñ ne ay mbokku deretam ñoom ñëpp def nañ ay témoignages ñëpp di dégg depuis coow li am ay mbokk dëkkandoo mooy ñi nga xam ne tey jii bu jaaxle woon ñoom ñooy njëkk balaa sax ay mbokkam yenn ca Ziguinchor wala feneen di ñëw ñoom ñim dëkkandool fii ci Dakar ci cité kër góor gi ñoom ñu taxaw seede seede yooyu mm-hmm. wax ni kii kët jullit àqan la mm-hmm. parce que mi ngi doxal doxaluñu jullit parce que jullit boo nekkee ak say moroomu dëkkandoo. Mhm. da ngay tënku. Mhm. ci li yonent bi salaahu salaam wax ñu ñun jullit ni ci lañ war a tënku ak lim ñu jàngal. Mhm. mooy boo dëkkee sa moroomu jullit même bu ngeen bokkul sax diine. dangay rafetal ci moom. ba ngay ba ba lépp loo xam ne da bëgg nga ko ci lu baax ak lu yiw pour yow. da ko koy yéene. ba loolu day tax wax dëgg yàlla euh, loolu boo ko defee. nga mën cee am yiw ba noppi yàlla mën nga mën ci am ngërëmal yàlla kon nag jàpp naa ni mhm. bu seede yi jógee foofu ci ñim dëkkandool parce que ki nga dëkkandool man na laa xam nag mhm. parce que mi ngi dugganteeg yow di dem ak ñëw wala même duggantewul mi ngi lay seen parce que cité góor góor quartier bu ndaw la te am na ci koo xam ne koo xam ne ma dollil la ko am na ci koo xam ne nee na moom malgré que yàqal nañ ko matériel moom tey bu doon moom moo taxawee ci Ousmane Sonko lu muy wax rek danaa nattu yàlla la yàlla dina ko may lu ëpp li nga xam ne ni moom la moom la liggéey ba am loolu ma koy saluer de passage ndax euh, anonymat. voilà jërëjëf xam nga euh, loolu dama ko wax gaa yi man leen xam nga bu ngeen xoolee ni nit ñi ànduñ ci yëf yi caaxaan yi nu bëgg a def mooy même ñoon ñu lakk seen i oto parce que ñi ko lakk xëy na effervescence lañ nekkoon ak métit gu xool bu jeex parce que ñun rafetlu wuñ benn yoon ñu lakk benn matérielu jàmbur man mm. d'accord ma ci lakk mais nag tension bi comme xam nañ ko ko indi parce que moom dañ koo dem di jëli. Mhm. xëy na daan dugg ci waxtaanu ci kanam mais dañoo dem di jëli koo xam dafa am mbalaanu kiiraay. Mhm. ñu dem convoqué ko pour ni dañ koy jëli. altine jox ko convocation bi àjjuma moom mu def discours am wax xale yi ni man ñi nga xam ñoo ànd ak moom parteem de manière général ak sénégalais yi ni man damaa nekk député. Mhm. loi bi moo ne kenn mënu maa jël si. comme flagrant délit amul te spécialiste yëpp ne nañ flagrant délit amul ci dossier bi commencé woon nañ sax di instruire di di di di laaj ay nit ñu ne léegi donc kon ñoom euh, bala ñu koo mën a jëli këram fokk ñu dindi mbalaanu kiiraayam mu ni man bu ñu dindee sama mbalaanu kiiraay dix heures dix heures cinq maa ngi ci euh, maa ngi ci kanamu yoon waa kon nag léegi ñoom lu ñu wuti woon këram nan dañ koy jéem a jëli alors que moom mbalaanu kiiraayam kenn dindee ko xam nga foofu indi mhm. na li tax tension ba am kon ñoom ñoo indi provocation bi mënuñu wax ci ki fayu mhm. te waxuñu ci ki tooñ kon nag rek bu ñu demee ba nit kooku ngay wax ni moom lakk nañ alalam ki tooñ waaw ki fayu la xam léegi nag koo kooku dem ba ni moom même liñ ko yàqal moom muñe na ko wax dëgg yàlla Ousmane Sonko ak jikkoom ju baax daañ fa ñëw fa ñëw léegi nag euh, bu ñu paree ci li nga xam ne def nañ ko ay gëstu ci Ousmane Sonko ci côté moralité dañuy daal di dem fi nga xam ne mooy ci Adji Sarr Adji nag balaa ñuy commencé ci moom dañ leen di wax ne rek nekk na tamit jeune boo xam ne lu jara xel la dafa ñàkk waajuram bu jigéen ñàkk waajuram bu góor nekk jeune boo xam ne yaroowul ak waajuram te nee nañu nit sa sa éducation kañ lay gën a mat mooy nga gis say waajur sa côté ñu naa la defal ni waxal ni loolu tamit c'est à tenir en compte balaa may dugg ci li nga xam ne mooy li ma fa jëlee ma dal di dem ci ginnaaw raay ak sax Fatick am na ñoo xam ne nii jot naa leen ndax ginnaaw raay am na koo xam ne nee na Adji Sarr fa mu juddoo Fatick moom mooy fa la fa la fa la jógee ñëw fii di fóot Adji Sarr nag euh, wax dëgg yàlla euh, du ñu du ñu nekk fii di yàq der wala dara lañ fa jëlee rek la ñuy wax amul kenn koo xam ne daal wax nañu tey bu fekkoon man dañ may takk dañuy dem laajte def enquête. enquête de moralité. bi ñu defee enquête boobu noonu li ñu wax mooy xale bu doy waar la woon xale boo xam ne da daan def ay tooxi doona yu bari am na kenn koo xam ne tàntam la nee na Adji Sarr da daan tëdd ba guddi làmb du ko gis bu yeewoo fajar du ko gis daan na toog ba ñetti fan du ko gis nee na jóge na fii dem fee jóge na fee dem fee nee na koñ ba nag li yàlla xam doy na ñépp xam nañ ko ci ci bëgg maanaam àdduna bi mu jógee Fatick ba tey kenn mënu koo téye kenn mënu koo maîtriser loolu yëpp tamit boo ñu bàyyi la sa xalaat ci gone goo xam ne situation mag environnement ak tamit ñàkk ay waajur xëy na yu ko jegeeg yooyu ñu bàyyi la si côté moralité bi si côté Adji Sarr non xam nga comme ni ma ko waxoon ci Ousmane Sonko laa koy waxee si soxna Adji Sarr mi ñu nga xam ne moom moo tu la ñu wax ne moo tuumaale mhm. man euh, Adji Sarr xaw ma ko comme ni ma ñàkk a xamee Ousmane Sonko mais ma joxe ay fee rek parce que ay mhm. fee nga indi mhm. yu kenn dul werante ñu commenté nga indi waat yeneen fee wala ay wax en tout cas yu wax yoo xam ne dañ la koo wax parce que moom xëy na euh, andi lu dul témoignage la wax ci moom. Mm, oh. comme ni nga kenn témoignage aussi ci Ousmane Sonko. Mm-hmm. l' bi Ousmane Sonko am na quand mooy que ne moom c' est un mm-hmm. nit ñi xam nañ ko. Mm-hmm. mais kii dafa nekk nit koo xam ne kenn xamu ko. coow lii moo ko mettre en exergue ba sénégalais xam ko mais nag même bu dee loolu la nit ku nekk da am ñu la xam même man bu ma leen xamul man na maa jàngat ci li nga xam ne moo am ay ay mbokkam am ay waajuram extra léegi nag li may doore mooy li nga doore sànq mm-hmm. man dama ko yërëm mm-hmm. parce que man jàpp naa ne xale bii xale bu ñuy utiliser la rek mm-hmm. moom du ci dara ndeysaan waaw euh, xëy na dinañ am ci benn part euh, responsabilité bu ñu ko ciy jox tuuti mais responsabilité du bari lool xamul tax parce que nit bu nekkee ci jafe-jafe jafe-jafey koom-koom mhm. nga xam ne yorul dara day vulnérable mhm. li tubaab naan vulnérable maanaam jot ci moom day yomb mais du ko teree am dignité waaw loolu am na loolu am na mais loolu xamalu tax du ma ca xuus mhm. mooy dañoo wax ci say ci information yi nga joxe te presse bi yëpp wax ko fan yi mooy que ne mooy màggal màggul ak ay waajuram te nit waajur dafa am solo doom parce que nit la sa tendre enfance day peser ci sa personnalité xale bu dund ak ay waajuram bokkul ak xale bu dundul ak ay waajuram. même bu fekkente ne environnement bi mu nekk baax na mais ñi nga xam ne ñoo ko meññ. mu dund ak ñoom dafay am jeexital bu muy def ci ñoom bu bokkul ak ki nga xam ni moom euh, vraiment dafa dafa nekk ci euh, beneen boor donc man la ma jàpp mooy loolu lañ koy loolu lañ koy yërëme moom moo tax ma rafetlu sax démb li président Ousmane Sonko wax euh, ci bi muy dajale ay jigéenam démb def na benn waxtaan ak ay jigéenam ni moom. mi ngi sargal continuer sargal jigéen ñi parce que même fekkee jigéen moo def lii nga xam ne wax dëgg yàlla ñëpp ci rus Sénégal mu ne jàpp na ne ay góor ña nga ca ginnaaw parce que am na information nag ndaxte ay avocat am déglu na ñëpp ba wax ko information fu mu toll te moom it mbir mi nag mu ngi ni rëcc ci biir xam na li ci ne kon nag man ba ba mu teg ca lu ma lu ma rafet lu man dàmbuj mu ne moom lii dina baal aji Sarr parce que ñëpp xam nañ ni moom mbir mi moom mu teguwul fenn ay yëfi caaxaan la Sénégal moom yëpp d'accord nañ ci léegi nguur gi kay ni muy def ba génn ci la ñuy wax waaye fi mu doon moom wax ji féete na boor. Mm. mais naam bu dee wax ji féete na boor moom président Sonko nee na moom dina baal aji Sarr man jàpp naa ni parce que moom euh, xam na ni dañ ko manipuler. dinañ ñëw foofu ci wàllu consensus. waaw fi mu toll nii puisque ñaari côté yëpp moralement gis nañ li nga xam ne jëlee nañ ko fa. ñu nekk ci dëkk boo xam ne dañoo dañoo choqué dañoo am ay ay jafe-jafe yu metti ci wàllu dund dëkk boo xam ne liggéey amatu fi feebar bi occupé na plateau yépp cimetière yi dëgg la dee day am fu tout le temps mais lam doon demee demeetu ko kilifa yu mag ci réew mi ñu ngi dem Sénégal nekk ci ay jafe-jafe koom te xam nañ ne koom mooy doxal réew problème bi tege entre un une personnalité politique de l'opposition ak euh, benn jeune société civile benn loolu lañ ko mën a waxee jeune boo xam ne euh, xëy na am na lu bëri lu waral même bu doon moo def lii moom kese ci kiiw boppam lu waral acte bi Ousmane Sonko jug ne moom baal na Adji Sarr waaw waxagul ni baal na ko mais ni mu waxee dañu moom jàpp parce que. xam nga xam nga baal en tant que jullit rek. waaw waaw waaw li mu bëgg a c'est important ñu leeral foofu. waaw parce que xam nga demaguñ sax. Euh, ci mbiru mi fenn ci mbiru jo luwa luwa mais xolum jullitam rek. voilà maanaam tey buñ toogoon tey. moom mu ne ko baal ma dina ko ne baal voilà tey ñu am ay kilifa yu baree bari ci réew mi. Mhm. ci wàllu bu ne nag. foogoo ne tey consensus war na mën a am balaa ñoo egg ci leneen. waaw dëgg la man. xam nga consensus d'accord naa ne bu ñu paree ci lan war a jëm parce que dañ ni vérité et réconciliation ci àdduna yàgg na am mm-hmm. maanaam bu ñu nee ba duut baaraam ci jafe-jafe ak ku ko ëndee ku andiwul parce que sànq damay wax ci loo xam àgguma ca ma ne moom bu nee ba euh, bu ñu génnee ci lii parce que mm-hmm. lii moom wax dëgg yàlla man sa faa bañ a egg parce que man jàpp naa ne assemblée nationale bu ñu gisee li xew nii fan yii yëpp ndeysaan ñoom sax war nañoo rus ñoom ñu doon wax dañuy lever immunité parlementaire Ousmane Sonko man jàpp naa ne lever immunité parlementaire Ousmane moom jeex na man jàpp loolu gën a ñaawal seenub daanu man jàpp naa ne loolu moom kenn waxatu li waxam ci li ma gëm bokk bu dee bu dee bañ nañ gàcce ku mag dal leen parce que gàcce moom am na ba pare mais bu ñu bañee gàcce gi gën a rëy man jàpp naa ne duñu yegg ci lever immunité parlementaire danay wuti pexe rek comme yàgg na fee am assemblée nationale ñu saisir ko pour mu lever immunité parlementaire. mu ne balaa may dem ci consensus li ngay wax nii day tax ma andi une question parce que yéen toujours doo leen analyser affaire bi ci coté les deux camps da ngeen jàpp ne yéen place u Adji Sarr da ngeen fa teg lii di gouvernement Sénégal ba tax na sama xel day dem ci comproment xam nga comproment c'est la stratégie politique russe bi nga xam ne dañuy utiliser toujours. Euh, des choses compromettantes ci ay hommes politiques pour les pour ternir leen ba écarter leen de l'espace politique loolu ma liir ci ay sorties yu bëri yoo xam ne ñooñu ci côté boobu lañu ñu loolu noonu ngeen jël foog ko teg ko ay euh, présage mën nga ci def tuuti analyse joxe sa gis-gis jërëjëf xam nga loolu dafa yàgg ci àdduna Sénégal gi ñu nekk en 1962 dafa amoon kilifa gu mag gu fi nekkoon kuñ tuddee le président Mamadou Dia président Mamadou Dia nekkoon ak Senghor porter un projet projet de renouveau de de de de de l' espace public ni ñu doon pasar pasaree alalu Sénégal France contrôler alalu Sénégal comme ni mu koy defee ba léegi moom président Mamadou Dia gis ne xaalisu réew mi ñi ngi ko doon pasar pasaree ba mu si ndóol gi tant que ngi def loolu du fi jóg mu gis ne institutions yi dañoo nasax te dañ leen war a dooleel ñu am une administration forte lépp jaar yoon ñu teg ay principes yu leer am institution forte. loolu mu yore woon comme projet te arrangé wul woon France ci ay intérêt comme France à l'époque Senghor moo doon seen pion. Mhm. ñu utiliser président Senghor pour mu def complot contre le président du Dia. Mhm. dem dënge kook askan wi dënge kook kilifa diine yi dënge kook kilifa aada yi présenter du Dia comme un danger alors que Mamadou Dia moom moo naroon euh, vraiment permettre Sénégal. mu bokk ci réew yi nga xam parce que comme ay euh, euh, Corée du Sud nga xam à l'époque ñu doon tollook ñoom ay ay ay ay ay ay nga xam moom moo ñu waroon yóbbu ci niveau de développement boo xam ni ñu doon rêvé comme tey jii ñu ni cité ci pays africains yi ëpp doole malheureusement ñu rate ce tournant a cause du président Senghor et du et de la France donc la France Afrique ñu def seen complot contre président Mamadou Dia donc lii mënuñu ko dindi ci complot bi nga xam ni moom lañ nekk parce que projet boobu président Mamadou Dia porté woon tey jii mën nañoo wax ne moom la moom la moom la président Ousmane Sonko porté parce que président Ousmane Sonko dafa ñëw gis ni ñi ngi yàq alalu réew mi ñi ngi pasar pasaree ressources yi ba bind ci ay livres wax ni bu ñu bëggee génn solution bi du génn livre am wax ni fii la lii mooy gouvernance éthique bi lii la war a def pour pour génne Sénégal ci ndóol gëm suñu bopp gëm suñu réew gëm suñu jeunesse. coppite yi nga xam war nañ ko def yëpp ñu def ko def un changement de paradigme loolu nag arrangé wul France moo tax actuellement complot bi effectivement comme ni nga ko waxee France daf ci am ay intérêt parce que aujourd'hui France su sañoon Ousmane Sonko valeur éthique yi mii incarné. Mhm. ak nii nga xam moom la bëgg indi ay coppite ci loo xam du intérêt am parce que France réew yi mu contrôlé yépp mhm. bu leen buñ teggi woon contrôle bi mu am ci ñoom day dem day dellu nekk sous euh, pays su développé am na mhm. ay pays européens yu ko ay spécialistes yoo xam si en économie yu ne bu France teggee loxoom ci colonie yi. day dellu nekk day dem ci réew moo xam ne sous développement la jëm donc sama analyse ci livre bi nga xam ne moom la en Anders bind mhm. muy l'obsolescence de l'homme mhm. moom laa jeexal temps yi livre boobu tey jàngaloon nañu ay mbir ci àdduna buy ñëw ci waxtu yi livre bi c'était depuis mille neuf cent cinquante six xaw ma mais livre bi soo ko jàngatee bu baax da nga gis ne jamono yii la doon waaj ne buy ñëw dinga gis ñu nekk ci kaw fu kawe bëgg organiser àdduna num leen neexee dinañu jël télé yeeg rajo yeeg instrument yëpp pour jaxase xelu nit ñi pour indi médiocrité pour tamit euh, andi li nga xam ne mooy ay affaire de sexualité maanaam pour dénigrer le monde à leur façon. loolu lan nga ci gis. li ma ci gis mooy lu leer. ak jàngatu fa jamono ji ni mu waaw li ma ci gis lu leer la mooy le programme du nouvelle ordre mondial effectivement. kàngam yu bëri ci àdduna bi dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko prédire des siècles euh, nouvelle ordre mondial bi ak les Illuminati les francs-maçons du monde nga xam ñoo contrôler àdduna bi contrôler l'économie mondiale contrôler lépp luy xeetu koom-koom les les les les services comme la téléphonie contrôler les les grands yi nga xam ne moom lépp luy dox ci information ci àdduna bi ñoom ñoo ko yoree ak seen koom-koom ñoom ñoo am gisin bu bees wax ne ni àdduna bi tëddee ak ni ko yàlla subhaanahu wa taala të tërale neexu leen et que ñoom dinañ ko indi teg ko nag ay xeeti mbon bon ba aujourd'hui ñuy wax LGBTisation du monde presque lépp ñu teg ko ci xeetu mbon mbon ba ku ne gis na Joe Biden barki démb muy pays pays bi ëpp doole ci àdduna mu koy jiite di doog a nekk président élu des États-Unis mu ne réew mu mu parewul pour dugal ngóor jigéen mu bàyyi góor jigéen yi sa réew ñu def lu leen neex dina la sanctionner moom loolu la wax Joe Biden looloo tax bi sénégalais di kontaan ci bi ñuy fal Joe Biden man leen yéen bu ngeen xamoon valeur yi ngeen gëm ak li Joe Biden di incarné ak fa mu bokk kon du ngeen du ngeen jubilé Donald Trump gën téeméeri junni yoon Euh, Joe Biden parce que Donald Trump xëy na ni koy defee c' est le défenseur d' une cause c' est c' est un mauvais défenseur d' juste moom. moom gars yi dinañ defe ne dama Trump laa mais mais mais Trump non ñi xam ñëpp. c' est bizarre gis nga élection passée. c' nga am nga am gis-gis. gis nga euh, ñi xam ñëpp. Mm-hmm. Donald Trump lañ faraloon parce que Donald Trump. ci ñi am valeur laa wax. Mm-hmm. te xam am na ñoo xam sax am nañu valeur mais xamuñu. Mm-hmm. mais ku xam. du ànd ak Joe Biden ak euh, ak les démocrates par rapport ak seen projet bi ñuy porté parce que ñoom comme Joe Biden comme comme Donald Trump l'a dit c'est une minorité qui est en train de me combattre effectivement mooy ces Illuminati ces francs-maçons yi nga xam ñoo contrôlé koom-koomu àdduna bi am seen gis-gis bëgg ay indi lawal mbon mbon lawal mbon ci àdduna bi ñoom ñoo ni euh, ñoom réew mu ci nekk képp koo xam ne tënkuwoo ci loolu dinañ la xeex faagaagal la nga jóge fi donc loolu moo tax léegi quand un président. comme Ousmane Sonko am ay valeur ay valeur cardinal yoo xam si ñëpp mën nañ cee dut baaraam mais kooku ñooñu du leen arranger loolu moo tax bu ñu ko tegalee complot bu mel nii munu munu munu munu munu la bett kenn ku xam. mais nag xam nga fu daanoo. mooy complot bi dafa setul. maanaam dil bi dafa setul. léegi loolu rek mooy seen cat cat c'est-à-dire. yàlla nag mooy aar man xam lu ma gëm fa laay daanee président Ousmane Sonko ko war a sant yàlla subhaanahu wa taala la parce que lu sotti nag moom la parce que moo leeral lépp ndeysaan sant mu toll lépp leer lépp leer na léegi nag loolu moo tax man ma jàpp ni euh, wax dëgg yàlla ku war a sant yàlla subhaanahu wa la mais ku war a sant yaayam la man maa ngi koy wax di ko waxaat man su ma doon moom la lii bu ma ci génnee rapidement damay dem toogaat ak sama yaay ne ko yaay alhamdulilahi rabbil alamin maa ngi lay sant parce que leer na man yaayam ku liggéeyi la mm-hmm. loolu mooy dëgg parce que man comme ni ma koy waxee kenn moomuma damay jaar ci digg bi wax ko parce que nag nekkuñu fi fas fii loo fi wax wala loo fi def ëllëg danga koy defaat wala nga waxaat ko kon nag man li ma jàpp mooy que ni dil bi moo setul boo xoolee bu doon dugg nañ ci les faits yi nga xam ne moom la ñuy reproché euh, Ousmane Sonko mhm. da ngay gis du début à la fin mhm. tout est contre aji Sarr ak ñu ànd ak moom tout amul lenn looy teg luy wane ni teesu complot bi mënees naa xaw a sax indi jiixi jaaxa ci bopp nit amul dara lu ci lu ci indi jiixi jaaxa lépp leer na naññ ni. Mhm. dara amul que Adji Sarr moom mënoon di violer ba noppi di organiser sa viol. moom moo doon organiser viol bi maanaam moo doon wax waaye yéen kañ la Sonko di ñëw di dem di seet patron nag waaye yéen kañ lay ñëw ban jour lay ñëw des fa nga ne ku ñuy violé di nga dem di organiser sa viol ba noppi wut ab oto boo xam ne dañ koy positionné pour bu affaire bi jàllee mu ñëw jël si la yóbbu la ensuite fan la nekk moom Adji Sarr. ñu dem ñu dem ñu dem ñu dem toujours euh, ci li nga xam ne mooy les faits ñëwaat encore nag ci côté euh, assemblée fekke na ñu les les les grande date de Khalifa Sall fekkee nañ Khalifa Sall levée de l'immunité de Khalifa Sall ci assemblée fekkee nañ condamnation fekkee nañ lu bari muy ay procédure yoo xam ne bu ñu defee jàngat yoon moo nekk ndox moo nekk di topp walwal yoonam lan nga ci mën a def synthèse bu ndaw balaa ñuy ñëw ci consensus parce que man consensus moom ma ñor ndax lii enjeu politiques yi xëy na ëpp na Sénégal ñu bëri ñu ngi accuser président Macky Sall c'est un politicien Macky Sall c'est même pas un politicien c'est un homme politique waxoon naa ko ci benn émission nit ñi di ko dagg Macky Sall c'est un technocrate politique que je respecte en tant qu'élève mais man mais man mais lii est-ce que ngeen ko bëgg a analyser ci Macky Sall complot état rek est-ce que foofu la yem parce que man jëlal naa la affaire bi au delà de nos non loolu loolu non effectivement non effectivement Macky Sall n'est pas seul man ku ma suivre ci samay émission moo waral nag ma lay wax waxu consensus waaw moo tax man la man ku may suivre ci samay émission mhm. damay wax ni Macky Sall décidé wul dara xam nga loolu dama ko wax ñëpp di ko dégg kooku kay wax ji féete na boor mhm. man toujours damay wax ni du moom mooy décidé parce que wax dëgg yàlla décision yu mag yi dépassé na ko mhm. même am na décision yoo xam ne président euh, Macron mi nga xam ne moom moo leen tiim ñoom di leen euh, di leen won yoon même moom am na décision yoo xam dépassé na ko donc aujourd'hui décision yi benn poignée de euh, personne la boo xam ñu ngi ci àdduna bi yore lépp comme ni ma ko waxee sànq ñoom ñooy wax fan la nit ñi war a jëm di imposer seen dictature par rapport ak seen pensée unique kooku kenn du ko werante ci buñ duggoon ci détails yi mën nañ la jox ay détails yu leer mhm. mais loolu du objet waxtaan wi parce que li ñu mhm. andi waxtaan wi léegi loolu noonu yëpp buñ ko tegee tey autour de cette affaire de cette waruñu am consensus waaw léegi ca laa ñëw dinaa ñëw ci mais da ma laaj ci assemblée bi mhm. te loolu c'est important ma tontu ci parce que député député euh, député euh, euh, président Ousmane Sonko dañu bind président assemblée nationale mi nga xam ne day mébët parce que def nañ benn réunion pour waajal comité ad hoc bi nga xam ni moom mooy waajal lever immunité parlementaire bala ñuy dem ci plénière. mais jàpp naa ne man question yi nga xam ne moom la avocat Sonko yi wax euh, la euh, euh, digal ko président assemblée nationale ci ñuy ruube naan mu ñu ko bind non ñoom dañ koo bëgg dimbali. parce que assemblée nationale ñëpp ko moom bu ñu fi lever immunité parlementaire Sonko ci ci caaxaan ci loxo amul benn njariñ ba noppi ëllëg gàcce gi seen kaw lay dal te Ousmane te président Moustapha Niass à son gàcce googu jàpp naa ne waru ko fee xaar cest à dem lever. immunité parlementaire boo xam Sénégal yëpp xam nañu amatul benn njariñ parce que lépp leer na. mais xam nga cas de viol dafa grave gis nañ fi le directeur général de l' FMI. Mhm. Dominique Trostan. du FMI way dañ koo dañ koo euh, dañ koo dañoo dañ koo traîner à la justice def ce qu'il euh, ce qu'il était de droit. ndax viol accusation présomption rek c' est un c' est un c' est un truc boo xam ne. état tamit. non boo mën na koo. may ma ma ñëw bàyyi mu sedd. non may ma rek ma ñëw boo bokkul. ñuy wax ñaari cas yooyu dañoo yem euh, Dominique Dominique euh, Strauss-Kahn euh, moom bi ko Nafissatou Diallo di di jiiñ ne dafa yegg ci moom ci jaay ko doole mm-hmm. dafa am flagrant mm-hmm. benn dañoo ay preuve ci chambre bi preuve ci yaramu xale bu jigéen bi preuve ci yan fa fekk ba noppi kooku am passé ci loolu loo xam dañ ko koo jiñ ca France plusieurs fois yu mel noonu mhm. donc contexte yi bokkul bu nit ñi mhm. def ay jaxase jaxase yi mhm. bokkul kii kenn xamalu ko dara lu nuru loolu moom Ousmane Sonko avant alors que kee c'était le contraire beneen bi mooy kii amul lenn benn preuve nee naa la lépp li nga xam ni euh, mi ngi daw actuellement ci li nga xam ni moom moo am actuellement ci dossier bi lépp day wone ni amul amul dara lu wone ni lool am na parce que kee Nafissatou Diallo néewul dañ maa violé plusieurs fois dani man euh, maa ngi nii euh, di doog ay euh, génn ci chambre bi daf ma forcer pour sëy ak man bu ko soxna sii defoon aja Adja Sarr kon dana wute mais dani dañ maa violé violé waat ma violé waat ma te waxuma ko kenn dañ maa yore dañ maa woon arme te nee na ki ko woon arme après daa ñibbi ñëpp des fa ca kër ga muy maasee te du ab immeuble benn terrasse la kenn déggul coow kenn déggul yuuxu kenn déggul bërëx bërëx kenn gisul ñu gaañ ko fenn ba ci jour bi nga xam ne moom la wax ne dañ koo violé waat jour boobu bi ñu ko yóbboo ña ko fi jël si d'abord te moom moo leen woo ni leen kaay leen jël si ma yóbbu ma fi ngeen may yóbbu ñu dem yóbbu ko fa ñu dem ab médecin seet ko ni kii de lu mat fukki waxtu ak juróom-benn ngi ni sëyul kon nag wax dëgg yàlla tous les faits vont dans le sens de disculper Ousmane Sonko donc loolu mooy dëgg. loolu tax bu ñu ruubee. ñaari kaay bokkuñu. d'où le consensus donc ñaari kaay bokkuñu c'est-à-dire noo ko mën a jëlee rek. tey dañ cee tuumaan nag ay nit non consensus boobu d'accord naa ca lañ jëm effectivement gis naa ni yow effectivement ni nga ko gisee mooy lii moom bu doon dañuy seet lu leer wax dëgg yàlla euh, nii laa defoon moom euh, olof yi dañ day yokk sàgganu nguur nag du sàgganu man li ma jàpp mooy comme Sénégal yépp depuis que ñu génnee PV audition yi avocats yi yore ay journalistes def ci ay live def ci ay émissions en direct ñu teg ko euh, tekki ko ci wolof sénégalais yépp comprendre li li ku nekk lam fa wax lafa aji Adji wax xam nañ ko lafa fa euh, ñaareelu masseuse bi mami ba wax euh, bind nañ ko euh, mama ba la mu wax bind nañ ko bind nañ également li nga xam ne moom la borom këru ndaw si wax bind nañ li nga xam ne moom la kooku ñuy wax ne moo jëli kiy tuumaale ni dañ koo dañ koo violé ka ko jëli muy Sidi Ahmed Gueye boobu nga xam moo ko jëli ci ci benn 4 x bu ñuul mm-hmm. te te mu nekk doomu kilifa gu nekk ci Benno Bokk Yaakaar ca euh, Sidi Mohamed Mbaye je ne sais pas euh, le le Sidi euh, le Sidi Mohamed Mbaye boobu moom ci boppam pa papaam dafa bokk ci kàngamu Benno Bokk Yaakaar maanaam nguurug Sénégal ñoo ñëpp bi ñu leen dégloo tout converge vers le complot qui est clair maanaam xale bu jigéen bi dañ ko utiliser pour def un complot pour tuumal koo xam ne lakkal na nguur gi parce que arrangé wu leen parce que nous allons à des élections yoo xam dafa am enjeu muy 2024 donc lii euh. bu fekkente ne lii euh, leeral nañ ko ba pare parce que man gëwuma consensus boo xam ne mhm. raay raayal moo ko waral jàmm day lalu ci dëgg xam nga tax jàmm waral a lalu ci dëgg mhm. dañuy dut baaraam ci ñi tooñ kay ba maanaam Ousmane Sonko léegi mooy rek cëggal guyam léegi mbir mi leer na man jàpp naa ne bu ñu bëgg la bu ñu bëgg la xalangu est-ce que xam nga ne kii di est-ce que xam ne kii di procureur du sukkandiku ci PV yooyu pour def euh, lii di nga xam ne mooy euh, ay enquête am maanaam procureur dafay yor yeneen PV am yoo xam ne daa uteeg ki nga xam ne moom laa askan di gis waaw moom laa lay wax mais mënta inventé bu dee daa bëgg jàmm xam nga procureur mënta inventé en euh, instruction bi bu demee ba dee nar na caa yegg man damaa jàpp ne bu dee bu dee xool nañ ni Euh, bu dee gis nañ li nga xam moom mooy tendance bi man ci li ma gëm mooy war nañoo wuti pexe ba a yegg ci instruction parce que yegg ci instruction moom gën a gën a ñaawal jël bi lay doon mais jël bi moom am na ba pare donc man li ma jàpp mooy mhm, mhm. Euh, euh, loolu ngay wax yaakaaruma ne procureur na ko def maanaam dem wax leneen lu bokkul ak li nga xam mooy enquête bi fi mu tolloog li nga xam moom la ku nekk wax mais loolu mënta nekk parce que bu ñu demee ba ñoom ñëpp ñu wane ni ndaw si dëgg moom boobam ñi mu ko bokkal ci mbir mi yëpp ñëpp li ñu wane wane ni moom kenn kenn sàkku ko parce que encore une fois il faut mm-hmm. sénégalais bàyyi da l'amalgame mm-hmm. dégg naa avocat dégg naa avocat euh, yi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci euh, benn avocat sa dégg naa la am ma mm-hmm. ñaar en jàpp naa ne avocat bu gëm sa bopp euh, di ju gëm sa réputation jàpp naa ni dossier bi doo ci dugg naan da ngay jéem a défendre la thèse du viol man jàpp naa mais mais may rek damay dimbali rek nga daan ma daaneel foofu gis nga bu ñu bu ñu ruubee ñun Sénégal ak di def amalgam xamul tax Ousmane Sonko luñ ko jiiñ mooy dafa yegg ci ndaw si tout porte à croire que loolu accusation c'est c'est une fausse accusation parce que nee naa la témoignage yëpp wane na xale bu jigéen bi moom sax moo doon góolu Ousmane Sonko di ko xaar pour mu ñëw yegg ci moom alors malheureusement elle n'a même pas pu l'avoir parce que ab médecin wax na ni guñ ci moom jour boobu. Mm-hmm. waaw beneen bi mooy. mu ni plusieurs fois et cetera et tout ça maintenant sénégalais yi wax naan Ousmane waroon na faa dem ak waru faa dem loolu c'est un jugement de valeur ça c'est le jugement moral. Mhm. man nekkuma ci jugement moral parce que loolu du objet wu débat bi. Mhm. maanaam waroon na fa dem waru fa dem puisque kenn terewul dem fa te salon boobu ab lieu la boo xam si. c'est un lieu qui n'est pas interdit. Mhm. ku mu dem fu la neex bu fa demee parce que nit ñi ne ne waru foon a dem lool conséquences yam et cetera nit ñi ko non vraiment di ko euh, mere ci loolu loolu wu ko. néewuñu ko dañ laa jàpp parce que waroo faa dem xam lu ñu ko reproché ndax da ngaa da ngaa yegg ci ndaw si wala déet donc loolu mooy object te loolu nee naa la lépp wane na ni loolu amul maintenant nag. Mhm. dégg naa avocat wu l'autre partie kenn ci ñoom ki nga xam ne moom dañ ko fay ji ñoon sax viol wax dëgg yàlla moom bër ci démb yàggul moom moomu. Euh, avocat boobu mu ni noo na Ousmane Sonko nangoo dem ñu defal ko test ADN lan mooy test ADN test ADN xamul te amul njariñ ci proce bi même tey jii par extraordinaire mooy lu ma gëmul man boo amoon maanaam Ousmane Sonko sëyoon ak xale bi mais loolu taxul taxul mu am thèse viol c'est-à-dire même bu woon test ADN ak lu ñu mën a wane ñu naan dañoo am man yu bu ñu bëgg a méngale ak ADN am même bu ñu méngoo woon waaw léegi nan la ma léegi ne benn avocat bu ma dégg kooku il est dans waaw d' accord d' mais dama la. mais il est dans son rôle bu dee moom mooy avocat bi il est dans son rôle de sortir toutes sortes de d' amalgame pour euh, défendre naa ak yow euh, soxna mhm. mais doon du tax nga nekk guignol. nekk guignol mooy di defaan loo xam ne ñi lay seetaan sax dañ lay reetaan ah test ADN ñu wane ni par exemple am na man yu bu ñu am boo xam si man yu euh, Ousmane Sonko la par exemple par extraordinaire parce que man gëw ma ne loolu am na mais même loolu bu amoon xam nga lu may wane. Mhm. am na. Euh, lu ñu séq ñoom ñaar maintenant loolu lan mooy wone ni parce que loolu am nañ ko rek te dañu violé xale bi parce que euh, euh, thèse u viol mooy il faut mu am violence mhm. il faut ñu wone ni maîtriser nañ xale bi ci benn affaire boo xam dañ ko teg pression mhm. yaa may dégg loolu ak jaay ko doole mhm. loolu ñoom mënuñu ko démontrer parce que amul parce que lépp montré na ne xale bi moo doon góolu Ousmane Sonko pour bëgg mu ñëw parce que moom ñi am nañu ne ci am di ko loo kon nag man jàpp naa ne di wane na def test ADN waxu caaxaan la xamul tax uh-huh. test ADN uh-huh. munul prouver xam lu mën a prouver uh-huh. que am na lu am ci seen diggante ñoom ñaar mais ñoom ñaar bu fekkente ne ñaari adulte la kii am na consentement mais consentement bi su amee may ma pour mu leer gis nga ñaari muskallaf Ousmane Sonko ak xale bii nga xam moom am na vingt ans la ñu wax te am na sax ñu naan ëppal na vingt ans maanaam âge majorité maanaam bi ngay moom di dogalal sa bopp ci sa sañ-sañ. Sénégal mi ngi ci dix huit ans. xale bi am na vingt ans kon léegi du xale. Ousmane Sonko du xale ñoom ñaar ay mag lañ même bu fekkonte ne dara am na seen mooy dañ koo déggoo parce que amul lenn luy wane ne dañ koo violé. kon nag ñoom ñaar bu fekkente ne ñoo daje woon par extraordinaire loolu amoon yoonu procureur nekku ci yoonu magistrat nekku ci. yoonu askan wi wax nekku ci parce que askan wi ñu bëri ñu ngi wax yore seen làmmiñ bu rëy ñoo gën a dëng ñu ci bëri ci ñi li ñu ñuy kaas nii ñu bari tey jii boo demoon ci auberge yi Sénégal auberge yi mi ngi fees dell il faut que sénégalais mhm. bàyyi di def la procès morale des gens alors que ñoom seen bopp tey buñ ni woon nan rangale sénégalais yi ku mos a ku ñu waat ku mësta moy ku mësta moy ñu rangale sénégalais yi na ñëpp waat ku mësta moy kon Euh, yuuxu dina jib fu ko foogewul kon nag man li ma jàpp. Mhm. mooy le procès moral du ci dugg. parce que le mhm. procès moral n'est pas l'objet du débat. maanaam même bu ñu sëyoon ñoom ñaar. Mhm. mënuñu cee téye Ousmane Sonko parce que. sëy ba dara génn. elle est majeure une heure de moom fu ñu daanoo ci dil bi tax dil bi setul soxna si. ñoom tax aayuñu. léegi man bu ñu ko doon def fa laa daanee rek gis nga bu aayoon. ci dil bin ñu bëgg def ni ñëpp xam ne dil bu leer la complot la boo xam daa daa foiré complot bee yàqu. Mm-hmm. mais bu ñu ko doon def tey jii jëloon may ma rek bu ñu jëloon xale bu ndaw a ndaw boo xam si dafa vierge. Mm-hmm. jël xale boo xam ne par exemple dafa am moralité bu baax. Mm-hmm. boo xam ne ay mbokkam boo lii amee ñooy taxaw aji sax déggoo benn mbokkam mu taxaw naam nee nañ ma papaam ñëw na Dakar te bëgg na ko gis jàpp naa ni aji saar war nañ koo génn nag parce que xamul tax man aji saar dama ko yërëm. mais papaam kay wax dëgg yàlla war nañ ko mën a may mu ak moom Mm. man am naa information. mais c'est pour sa sécurité may ma rek non non déedéet benn journal moo wax tey am na benn journal bu wax tey benn benn benn média. Mm-hmm. bu wax tey ne papay Adji Sarr ñëw na Dakar bugg na gis doomam mais gisagu ko te mënu ko gis waa Adji Sarr kan moo ko denc. comme nee nañ c'est une affaire privée affaire privée kay kon yoonu kenn newu ci. mais moom xanaa war nañ koo mën a bàyyi mu dem ci mbokkam bu ko neexee sax voyage léegi euh, léegi nag man li ma jàpp mooy léegi dama ko yërëm xam nga dama yërëm xaaral xaaral question yi nga xam ne mooy comme consensus mënul am tànk leeraluñ lépp buñ leeralee lépp juridiquement Ousmane Sonko buñ ko condamné à plus de quatre ans mhm. dootul mën a nekk président Sénégal cas bi dal ñoom euh, kii moo koy dal léegi loolu lan moo ci sa xalaat sama xalaat mooy loolu condamné Ousmane Sonko moom waxu waxu kasaaw kasaaw la man jàpp naa loolu moom wax dëgg yàlla dans ce dossier là nu ñuy condamné Ousmane Sonko mënul nekk c'est-à-dire que viol lañ ko jiiñ sénégalais bi gën a ndaw boo ko laajee mu ne la ak lu man a am viol moom amu fa léegi kay li may dégg ñu koy jéem a layam layamee dootul léegi viol bi léegi maa ngi gis une certaine presse complice taxaw naa non daa def daa def appel à l'insurrection mais quel appel à l'insurrection gendarmerie lu ñu fa wuti woon ñoom ay militants yi dem di sargal seen leader ci place boo xam si nekkul place buy yàqal kenn ñu dem fekk leen fa. Euh, euh, Ousmane Sonko def déclaration mais dañ nekk si moment de Covid. non may ma ne may ma ne non loolu c'est autre chose non waxuñu loolu néewuñu violation. des man man moom du ma waxuma la loolu xam nga posé wu la question boobu parce que ànduma ci loolu. mais ci li ma ànd mooy rassemblement tey. mun nañ leen ko wax ne dañ ko def dañ leen ko def dañ ci loolu. Mm. léegi dama loolu ñëw mais dama la bëggoon la. ñoom gendarmerie dañoo wutiwul woon dara kër Ousmane Sonko loolu mooy dëgg Sénégal du ñu bàyyi ki tooñ di wax ki nga xam dañ koo to daa daa tooññar bi man li ma jàpp mooy comme nee na moom la veille d'accord na pour dem wuy ji wax ja jeexoon na mënoon nañoo def seen procédure levée immunité parlementaire bu dee nar nañ koo def te jàpp naa ne bu ko defee jël bi day gën a ñaaw kon nag man jàpp naa ne bu ñu fa demee ñoom ñoo provoqué situation bi loolu laa gëm donc lii dëgg mooy nañu bàyyi ruube bi te wax li am li am mooy aujourd'hui cette affaire laa yàqu na maanaam lan ci bëggoon mënatuñ ko cee am parce que mënatuñu démontrer que dañu forcer xale bi parce que xale bi munoo kenn gis mësuma gis kenn mu sa gis ci àdduna ku ñuy violer ngay organiser sa viol te xale bi moo doon organiser pour xool nu muy def ba jot ci Ousmane. selon les dires de la dame. non non non non non c'est pas selon les dires selon selon rek c'est-à-dire y a des informations lépp dafa jëm pour leeral ni xale bi moom moo doon ci ñi koy manipuler noonu moo doon lal ndëgg sërëx pour jéem a am Ousmane songo ku ñuy violé nag doo def loolu parce que borom këru ki moom salon bi ak ki moom salon bi li mu wax ak euh, moom borom këram ak euh, xale bu jigéen bi doon maase euh, Adji Sarr benn moment parce que nee na benn maman Adji Sarr moo moo ne ma. Mhm. Euh, maman ba génnal euh, salle bi. Mhm. Euh, donc di créer une condition pour wét ak Sonko pour peut-être bu waxee dara kenn du ko weddi. Mhm. parce que boobu la mu ca bëggoon. mooy su kee génnee. su ko waxee kenn du ni li mu wax amul parce que ñoom ñaar rek a fa nekkoon. mais malheureusement pour el yeneen affaire yam ca teg. dem jël xaalis bi Ousmane Sonko fay may ma rek parce que comme patron bi moom dafa dafa am doom. Mhm. te nekkuloon ci kër gi moom bi Ousmane Sonko fayee moo yóbbu xaalis bi ci borom këru borom salon bi dem jox ko xaalis bi ñëw toogaat mu laaj ko mu ne ko amul benn problème daa am rek ku may jël si benn jakarta ñu génn gis ni du jakarta mais ab 4 x bu ñëw la ko fa jël see ñu pare ñu ni dañ caa tuumaal koo xam ne ab avocat la. ñu ñu wax ne bañ pare li ci am bëri na trop maanaam soxna si léegi fi nii xoolal daam fi mu nii man xam nga fan laa lay xaare ci gàttal nii mhm. en tant que euh, société civile mhm. te gis nañ ne que taxaw ngeen taxawaay bi ngeen daan taxaw mhm. ci chaque événement yu mag parce que ça duñ ko fàtte di wax nit ñi événement historique la au Sénégal oui parce que sa va rester dans l'agenda politique du Sénégal l'affaire Ousmane Sonko sera un souvenir bu garaaw ci dëkk bi kon nag ñi ko fekkee dañoo war a taxaw taxawaay. dafa war a am taxawaay bu ñu taxawee. taxawaay boobu ci kaw taxawaay boobu ngeen nekk société civile lan moo nekk fi mu toll nii seen ay prochaine procédure pour que vraiment dëkk bi bañ a sombre ci ay situation yoo xam ne c'est désolant et c'est honteux pour euh, limange du Sénégal ndax dëkk bi dafa nekk dëkku Serigne Touba dëkku maam El Hadj dëkku maam euh, Ablaye Niass dëkku maam Limamou Laye dëkku ñoom cene ba ak ñeneen ak ñeneen. Mhm. merci beaucoup xam nga soxna si nañ waxante dëgg comme ni ma la waxee sànq jàmm day lalu ci dëgg man bëgg naa lii bu ñu ci jógee ñu ngir yàlla ñu bàyyi politique bu salte bi ñuy def Sénégal parce que lii day gàkkal deru senegal c'est àdduna bépp ñuy seetaan ci ñàkk fayda yi parce que gis nga réew buñ la ko dénkee da nga koy jiite xam ne yow gënoo nit ñi parce que lu mat fukki million ak juróom benn nit yow yàlla tànn la ci ci lim bu ndaw parce que Sénégal bi mu nekkee ba léegi amaguñ lu dul ñeenti président mhm. n'est-ce pas mhm. président Senghor président Abdou Diouf mhm. président Ablaye Wade président Macky Sall ñeenti nit ci ci ci millions yi ni nit ak ñi dee ñi nga xam dund nañ ba dee fi te ñu président waaw léegi loolu soo ko amee da sant yàlla nga jiite ko ci dal bu sa mandat yi jeexee nga dem jox keneen mu jiite noonu mooy loolu mooy première jàmm. mais fi mu nekk nii du problème mu mandat non si c'est un problème nii problème génn ci problème. waaw waaw Sénégal coono yi fi nekk. ba ma dégloo rek dinaa ca yegg te nga bëgg mais dama la bëgg a leeral ni la loolu c'est important pour ñu wax ko parce que enjeu bi c'est des enjeux de pouvoir. Mhm. maanaam jiite ak bu ma ñàkk nguur. dafa bokk ci li nga xam ne réew yu bari yu am jafe-jafe moo leen ko andil. Mhm. léegi man li ma jàpp mooy. lii lii njëkk indi andi euh, jàmm mooy ñi nga fi lim sànq muy sunu kilifa diine yooyu. Mhm. ak kilifa aada yi ak leader ñoo yëpp ñu lancer un appel a ñi nga xam ne ñoom ñooy assemblée nationale xamul tax. Mhm. parce que suñu nee ñoom. del delloo nañ lettre bi ñi leen ko laajoon ni leen lever leen immunité parlementaire Ousmane Sonko ñoom delloo nañ ci ginnaaw parce que gisuñu lu jar ñu lever immunité parlementaire Ousmane Sonko loolu dina indi jàmm. Mm-hmm. bu ko defee loolu parce que loolu defoon nañ ko ci Moustapha Niass ci mm-hmm. jamonoy Ablaye Wade mm-hmm. demandé nañ lever immunité parlementaire assemblée bi xool daal di ay waxtaan am ñu gis ni lii te vraiment dana gàkkal deru Sénégal wala peut-être sax am na ay rafetal yu mën a andi ci seen biir te booba sax pourtant la xel gënoon a mën a nangu parce que dafa am ko déclaré woon loo xam ne peut-être moom nañ ko ca topp moom président euh, moom président Moustapha à l'époque léegi nag ñu ni maître baabu avocat moo ko digal ne ko dellul ginnaaw ci sa déclaration et cetera ñu daan ne léegi levé immunité parlementaire ba kon bàyyi nañ ko. Mm-hmm. kon man jàpp naa ne bii tamit premier acte bi ñu mën a posé ñoom pour jàmm am mooy ñu ni ñoom assemblée national comme ñoom parce que avocat yi Sonko dañ leen laaj leen PV yi nga xam ni moom la ñan déglu ñëpp lan wax bu ngeen leen dégloo ba pare ngeen doog a réunion xam lu ci avocat yi jublu. ku déglu lañ témoins yi ku ci nekk li mu wax ak li Adji Sarr wax moom ci boppam moom ci boppam sax dafa dugal boppam ku ko xool di nga xam ni wax dëgg yàlla lii lu euh, gis ñu fi lu jar duma xale kon nag ñun jàpp nañ ni li gën a baax pour jàmm mën a am mooy ñoom assemblée nationale li sénégalais yépp di xaar mooy ñu ne léegi levé tuñ immunité parlementaire Ousmane Sonko dañuy jëm ci jàmm pour toog xam ne lii ay nit a ko doon essayé ay pexe la peut-être sax du état bi mais kuy wut lu neex état moo nekkoon ci ginnaaw parce que mm-hmm. dil bi setul xam mm-hmm. naa bu ko aay dëgg du ko defee nii mm-hmm. parce que man su ma doon xanaa wax dëgg yàlla lu nu cuune cuune cuune waroon na ñoo xam ne dil bi setul parce que vraiment du début à la fin da ngay gis ni ak euh, faay yi dafa bëri daal maanaam même euh, xale bu ndaw bu am fukki at juróom bu ñu ko bindloo woon scénario mhm. dina bind scénario bu gën a baax bii même xale bu ndaw bu ñu ko doon tànnloo casting dana tànn keneen ku dul xale bu jigéen bi ñu tànn ci ku nekk li mu gis parce que ñu violé amul sa benn mbokk bu ñëw taxaw di la défendre amul sa benn mbokk loolu musuma ko gis Sénégal. wala sa la violé. waaw mais wala sa waa koñ. wala sa waa koñ wala am génn am seede bu seede bu rafet ci yow. yow amul kenn ku wax ci yow kon ka ko tànn ci casting bi. Mhm. wax dëgg yàlla daan na ci casting bi donc man jàpp naa ne ab cuune la bu doon wut lu neex nguur gi. Mhm. nguur gi dem ba ci biir gis ne mën na cee jafandu mu jafandu ci parce que Ousmane Sonko dérange 2024 su jàmm rek amee man ànduma ak moom mais tendance bi nit ñëpp di gis te gën nañ koo may doole ci coow li Mm-hmm. bu ñu demee deux mille vingt quatre da leen di fët fët yu leer naññi loolu la tendance yi wone man nag ànduma ak moom pour mu leer bokkuma ci parteem xaw ma fu mu dëkk xaw ma siège am xaw ma lennam ci coow li laay doo xam ne si te kër kër góor gi la dëkk donc man li ma jàpp mooy bu ñu bëggee jàmm nañ teg lépp ci suuf loolu mooy consensus bi ngay wax. Mm-hmm. consensus mooy sénégalais yëpp. gis nañ ni fii buñ fi attee leneen mën naa andi musiba ci sunum réew te réew mi kenn waru koo taal mhm. réew mi ñëpp a war a bëgg jàmm mhm. bëgg jàmm nag mhm. dama koy wax tout le monde bu ko defee bu ñu nee ñoom leveetuñ immunité parlementaire am ñun ñëpp ñu daal di dal xam ni mbir mi dem parce que moom déjà nee na bu lépp dalee comme ñëpp gis nañ ni moom wax dëgg yàlla yëf yi moom féete na ginnaaw waxi immunité ki waxi dem justice moom day gën a métti rek parce que sànq maa naan sama benn xale sama benn xarit ma ne ko cey buñ duggee ci procès bañ taxaw ca kanamu avocat ya xam nga dañ koo tëj kenn gis ko moom Adji Sarr mhm. benn journaliste mënu koo interroger mhm. kenn mënu koo gis ay waajuram sax nee nañ mënuñu koo gis mais loolu man jàpp naa ne mais loolu rek wane na ni du affaire bu sepp kon kay am na lu ku nekk ci a ñan mhm. et puis ay nit ñun ci tuumaal ñoom danoo jege nguur mais loolu aussi sa pose problème donc man dama jàpp ni li gën a simple ci ñoom ci kaw loolu non fa lay daanee la gis nga ñoom li gën a simple mooy ñu jàpp ni lii féete na boor parce que dil bi setul yàqu na léegi bu ko defee ñu jàll ci leneen loolu moo gën ñuy pousser loo xam ne ay coow la fi indi parce que la justice est rendue pour le peuple te peuple sénégalais bi soo defee sa reportage comme ni nga ko defee da nga wàcc ci terrain bi yow ni nga ko defee ñëpp gis ni effectivement reportage ma dama dem préparer émission waaw da dem préparer émission wàcc ci terrain bi dem wax ak ay acteurs yoo xam ni mhm. dañ dañ leen a dañoo am intérêt ci mbir mi leer la mhm. manifestation de la vérité te mhm. lépp wane ni jëmul ci viol muy ci côté Sonko muy ci côté ndaw si fépp nga dem dëddë njaaxaanaay lépp leer naa nañu noonu la tamit audition yi mooy déglu yin ñu déglu témoin itam noon la leere ci sénégalais yi nit ñi tës nañ ko nit ñi wane nañ ko ci ay journaux et cetera même si par ailleurs jusqu'à présent am nañ journaux yu kon ne di titre di pousse état bi ne ko demal jusqu'au bout dem ko bout ñi koy jiiñ état bi dama bëgg ñoo xam ne Ousmane Sonko du Karim Wade Ousmane Sonko du euh, du du Khalifa Sall naam ñoom ñëpp ay citoyens Sénégal lañ mais dañoo bokkul dayo ci politique ni muy doxe parce que soo jëlee Karim Wade jaay doole dañ ko jaay doole mais jaay doole bi ko jaay doole li taxoon mu yomb mooy ñi ngi doon ñàkk doo ko ñàkk nguur gi sénégalais yi na na na na euh, na Karim Wade rendre compte looloo taxoon mu yomb ci nguur gi ñu jaay ko doole def juridiction d'exception renversement de la charge de la preuve def lu leen neex beneen bi mooy boo jëlee Khalifa Sall waa PS ci coow la leen fekkoon ñu jàppante Khalifa Sall ñoom ñoo ñàdd nguur gi rendi kon Khalifa Sall moom amul woon ku ko défendre a part quelques mouvements mhm. khalifistes mhm. mais mais mais Ousmane Sonko symbolise beaucoup de choses dans ce pays actuellement mhm. il cristallise ko gëm yaakaar ko la frange la plus importante de notre pays la diaspora également ñoom it bokk ci xeex bi ñoom ñëpp ñu yaakaar projet bi mu porté du c'est pas la personne de Ousmane Sonko qui les intéresse mais Ousmane Sonko lim leen gëmloo ak projet bi muy porté ak coppite yim nar a ànd ci réew mi yooyu moo tax kii buñ ko bëggee méngale yemale ko ak li fi jaaroon loolu du yam te boo xoolee li xew bin ko jaayee doole ni ko dañ lay jëli malgré que levé wuñ sa immunité parlementaire xale yi taxaw xeex pour la première fois depuis 2012 le le régime du président Macky Sall sedd mi ngi doog a sedde gisaguma benn combat bu mu seddeegul à part bii maanaam dañoo xëy dem ni dañ koy jëli. Mhm. xale yi taxaw ni du dem. ñuy xeex ak ñoom. ba malheureusement pour eux mhm. ñu mujj dem ni léegi comme dem nañ jëli ko parce que dañ koo convoqué. bu mhm. nit ñi fàtte loolu dañ koo convoqué par force. pour jaay ko doole moom mu dem. taxaw contrairement lu ñu bari wax naan daa def appel à non. Hmm. dafa wax ni lin may jaay nii hmm. doole lan may jaay. ay militant ay militant ak ay sympathisant. daanaka cinq minutes waaw may ma rek fa laay daaneel damay daaneel damay ay militant ay militant ak ay dem ni ko dan lay jaay doole doo dem fen hmm. loolu nag ay jàmmaar loo am fa. ñu dem ba coow li àgg foo xam ne xam nañ ni lii dootul dem ca lañ doog reculer ne léegi. nañ bàyyi bii yoon. dellu ca ba nga xam ne moom la leen Ousmane Sonko wax wax ne nañ bu dee bëgg nañ koo déglu. nañ lever immunité parlementaire am mu dem wuy ji léegi nag comme léegi entre dafa am lu fi xew mooy lépp leer na la mu la lëndëmoon lépp leer na. ga mhm. léegi complot bi leer na nañ. que viol amul mun ñu fee fexe fexe ba ba développé fii lu leer ba ne viol la Adji Sarr bis bu jàkkaarloo. tel booba la booba la jël bi gën a ñaaw bis bu Adji Sarr jàkkaarloog les avocats de Ousmane Sonko ak ni ma leen xamee ay maître Bamba Cissé ay eh, maître clé Ciré Clédor ñu taxaw moom di ko di ko di ko di ko laaj ay question muy tontu dana fa craqué jooy wax dëgg gi te lu boobaa musiba dina am dox man li ma euh, jàpp mooy xam nga lu ma jàpp mm-hmm. mooy nañ suul lépp waxi ay immunité parlementaire ñu teg ko ci suuf mm-hmm. dox jàmm mm-hmm. wax jàmm xam ne lii rafetul pour sunu réew jàmm am ci réew mi ñu jàll ci leneen man loolu laa jàpp ne mooy solution comme yéen ñi nga xam ne yéen ngi koy seetaan ñu ngi nekkoon suñu émission comme politique émission bi nga xam ne day wër actualité bi andil leen lom qu'il faut à la place qu'il faut autour d'un débat constructif productif et positif ñu nekkoon nag tey ci mbiru euh, affaire Ousmane Sonko mu doon loo xam ne mënuñ ci woon ñàkk a génn boobu ba tey ñëpp a ngi ko doon sàkku naan euh, yaa ngi def émission à chaque fois actualité bu amee ma ne la émission bi dama koy waajal ba tax na bu ma jàkkaarloog askan bi dinaa leen wax li nga xam ne moo am sur le terrain te ki nga xam ne moo ci mën a wax mu def ci xalaatam dinañ ci gën a xuus nag continuer ci ak les hommes qu'il faut et femmes qu'il à la place qu'il ñu waxtaan ci waxtaan boo xam ne day jëmale Sénégal kanam ci waxtaan boo xam ne day construire day raffermir ndaxte cas yu mel nii euh, souhaité nañ lu gën ci si Sénégal ci jamono juñ tool nii ñu bàyyi rek ki nga xam ne mooy daam mu joxe kàddoom gu mujj te di la sant gërëm ci wuy ji bi nga wuy si lii di émission bi. jërëjëf euh, soxna Zeynab may leeral rek euh, soxna Zeynab comme ni nga ko présenté ci début que man Dame Mbodj euh, dama bokk ci société civile 2011 2012 bi ñuy jaay doole président Macky Sall ak ñu mel ne ñoom ak di jalgati suñu constitution damaa taxawoon di xeex di dem place de l'Obélisque di taxaw di xeex comme ni ma koy defee nii. te it ànduma ak kenn te bala ñu koo xam am ku jël réew mi bu dee dañoo yaakaar ni moom laa àndal mu jalgati man képp ku fi yore réew mi tegoo ko ci yoon damay taxaw taxaw fi mu war a taxaw en tant que leader. Mhm. de la société civile parce que réew mi rek moo ma ñor. Mhm. donc day wax ne lii ma fi wax sama àqulaay taalaa laa ko waxee. di bëgg jàmm am ci réew mi parce que bu ñu poussé. Euh, mbir mi ba mu àgg foo xam ni dana indi loo xam ni ñun ñëpp ñoo koy regretté ëllëg bu boobaa daan ni ña waroon a wax waxuñu mhm. man nag comme dama nekk leader d'opinion te jàmm rek laa bëgg ci réew mi mhm. wax dëgg yàlla man jàpp naa ne jot na pour képp koo xam ni euh, yaa ngi ci réew mi nga bay ci sa waar pour que ñu bañ a yóbbu mbir mi fu mu àggul mhm. kon nag euh, loolu moo tax soxna Zeynab maa ngi kontaan bu baax ci ñëw ci sa émission bu mag bi comme politique nga xam ni ñu koy seetaan bëri na Euh, wax dëgg yàlla day gindi askan wi ci thématique yu am solo nga dugg ci poñ boo xam actualité la boo xam dafa intéressé Sénégalais yi kon jàpp naa ne daal wax dëgg yàlla yàlla def na li gën ci li ma jàpp parce que léegi lépp leer na. Mm-hmm. li des rek mooy ñu xooli pexe. Mm-hmm. ba génn ci lii ak jàmm ak salaam. Mm-hmm. ñu fexe ba Sénégal ñu xam ni yii waru fee am parce que réewum Sénégal ñun dañoo am euh, dañoo am taarix. ñu respecté ci Afrique respecté ci sous région bi. complot nag yàgg na ci politique mais jàpp naa ne am na foo xam ni bu fa àggee day ëpp. Mhm. kon nag man lii rek laa amoon lu may wax di nuyuwaat euh, téléspectateurs yi di nuyu internautes yi euh, di la sant di la gërëm ci li ma dal. jërëjëf. kon nag yéen ñi doon seetaan seen émission comme politique tey fii la émission bi di jeexee ci kàddu yu rafet yooyu nga xam ne moom la kii di suñu invité Dame euh, Mbodj teg muy lépp li nga xam ne jàmm la ci Sénégal nañ ko ñoŋal ba mu am fii ci réew mi di remercier rek ñi nga xam ne ñoo may Séné ñoo may seetaan chaque jour ñi nga xam ne comme ni ma leen tuddee mes gens de bien tey nag mu tombé 14 février am ñu bari ñoo xam ne dañ maa bëgg te nee naa leen je suis amour ma leen di delloo di leen féddali mbëggeel bi nga xam ne nii moo am suñ diggante di remercier kii di sama mag nag bu baax a baax avec la main droite au cœur Mame Mbaye Niang di remercier Mame Mbaye Niang junior loolu noonu dinañ xam remerciement boobu pour lan la nous avons besoin de jeunes yu mel noonu ay jeunes yu engagés jeunes yoo xam ne ils aspirent à être demain des futurs hommes d'État ànd ak ay valeurs ak ay qualité yoo xam ne ëllëg Sénégal dina mën a wóolu ay jeunesse am dina mën a wóolu politique yi nga xam ne ñoo fi ne dinañ mën a bokk ci dëkk yi nga xam ne euh, foofu dina am démocratie bonne gouvernance ak ay valeurs sûres d'une jeunesse qui pourra prendre la relève jërë ngeen jëf